jërëjëf uh, mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyooti di leen ziar di leen ndokkeel te seen mbok seen xarit Bour Gueweul del suwaat ak yéen ci beneen rubrique te nag ñu seet si koo xam ni dëgg-dëgg dootuma ko présenté ci réew mi ndax wane na talentam ci biir réew mi ak ci biti réew mi nekkoon koo xam ni Cheikh Tidiane Diop uh, moo nekkoon léppam jàngal ko lim daan def mu mën ko daan ko exercer amoon relation tamit ak président yi fi jaar yëpp nee naa ko yow yaay seul artiste comédien bi nga xam ni euh, mën nañu wax ni que président yi fi jot a jaar yëpp li ko tàmbalee ci président Abdou Diouf président Abdoulaye ba ci président Macky Sall ku ci nekk euh, remarqué na sa talent wax ko fësal ko xanaa su ma nee jeegu yor-yor war ngeen xam ki may wax borom patron député jabaru patron député wala xanaa su ma nee Ibra italien xel yi waroon dem ci artiste jee bu mag boobu ñu gën ko xamee ci Ibrahima Mbodj alias Lamarana Diallo tey rek ma seet si ko ñu waxtaan waxtaanaat euh, ndax man euh, bokk na ci ñu gën a mieux placé pour mën a waxtaan ak moom Ibrahima Mbodj maa ngi lay ziar. Euh, buur maa ngi lay ziar di dellu ziar bu baax a baax a baax. Ibrahima la fu mu nekkoon. <laughs> waa ji bi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di leen ñaanal fa ñu ne ci àllaaxira yal na leen gënal euh, fii ak jullit dañ fa fekk yëpp ak ñi leen fa fekk di la nuyu di la ziar di ziar sa waa kër di ziar waa Grand Yoff commune bi di ziar suñu quartier bi ñu dëkk man ak yow muy xar yàlla di nuyu peuple bi yëpp di nuyu Sénégal yëpp ak fu ñu mënti nekk ci diaspora bi maa ngi leen di ziar lama mi ngi fi maa ngi fi. Mhm. Mhm. lama Sénégal am ñaari xew-xew diggante démb ak tey. kenn ki di Serigne pap Malick si domi Seydil babakar si kenen ki di euh, Baye Chamal tian chek khalifa bu chanaba bu Canaba waaw may wax rek ne mang koy jale bepp julit parce que ñaar ñooñu nga wax taxaway bi ñu won, du won rek sen ben tarixa dañu taxawaaye won taxaway julit yep këru diine bu ñu dem dafa melni fa lañ fa lañ juddo fa lañ magge fa lañ yoro nak def Eh, may jaale tarixa Tijaan di jaale waa ba di leen wax ne ñun ñoo war a jooy suñu bopp waaye ñeede defar nañu seen fële ba noppi yàlla nañ yàlla taasu si seen barke eh, barke boobu suñu borom def ko muy jàmm ci réew mi ak xéewal ak yiw ak mbaax ah ñañ fay fekk nag ñoom seen mbaax ak seeni barke yàlla na leen yóbbaale ca àjjana ja gën a kawe ja ah mm, loolu di ko jaale Sénégal gépp nag. Ibrahima Mbodj Lamarana ginnaaw lama ak koor gi euh, est-ce que ci yi gis nañ ni yow yaa euh, pratiquement mën nañu ci artistes comédiens yi ko njëkk def mais chaque année dañuy gis ne sketch koor yi dafay deltu gannaaw problème de qualité la. <laughs> wala wala lan la exact waaw bu du chaque année deltu ginnaaw dama ko arrêté benn yoon <laughs> parce que euh, comme ni nga koy waxee nit ki boo defee dara ok loxo yi bari na ci nit ñi ñëw nañu di ko def parce que kon baax na mais may dem di dem ba mu yàgg coow li bari imaam yi dugg ci ñi yor diine di wax ñi nga xam ni ñoo yor mbirum euh, nit ñi di ci wax bu koor jotee képp kuy def euh, waxtaanu koor foog nga wax ci sketch yi comportement bi ci artistes yi di def nu mu tegginoo ak liñ ciy wax ni nga xam ni rafetut ma ne nag euh, xam nga Sénégal ñun dañoo tàmm euh, bu nit di def dara te baaxut dañ naan ñëpp la wala ñu ne diw wala diw wala diw ma ne nag lii man biñ koy jog di ko def lu rafet lañ ci djublu won ak jangalé ginaaw nag dem na ba mi ngi yaxu man na delu ginaaw toga tuuti xol bu may delu ci ci koor ma xam fu may tegat suma tank ma ma indiwaat benen marque bo xamni biñu indi won xamni ñun li moñu ci taxoon juk mais defal deltu gannaaw d'une manière générale hein moy nit ñi bon suivre tuñ ko. wala léegi dañ ko jàppee léegi ay caaxaan wala qualité sketch boobu amatul. waaw parce que mooy li ma wax c'est-à-dire que euh, boy yi dañu ñëw di def di n'importe quoi donc euh, au lieu ñu gëstu toog réfléchir ci weeru koor lan moo tax koor suñu borom teg ko muy farata ci jullit lu suñu borom wàcc ko ci kaw suuf def ko benn weer ngëneel ya ca ak na ko nit ñi war a wooree ak la ñu dàq ca koor ga ak lañ ca tere ak li yàq koor ak li ko dul yàq je pense que boo ñëwee di def sketch koor loolu nga war a foofu nga war a accès sensibilisation. kon yow ni ko gars yi def daf la ma d'accord ci. non comme ni ko ñëpp kiiwee rek bon am na benn benn comme bu ñuy wax série Adja donc man dama ko rafetlu koor yaa amul lenn lu ñaaw. loo ciy gis wala di ko ci dégg lépp day rafet te day am thème yo am importance yoo xam ne du lu ñuy tudd mais li ñuy teg la nga koy suivre di ci jàngat. kon Lamarana d'accord na ci talent bi Diogoye Sène am tey boo doon comparé jogo Diogoye Sène njànku jeune talent yooyu. Euh, bokkuñu dafa mel ni tey nga ni Messi Cristiano Ronaldo nga ni am comment dirais-je nga ni Rooney ah bokkul. poste yi bokkul. Diogoye moo gën a talentueux. Euh, dafa am facilité. am verve facile. Diogoye euh, li ma sentir ci mom moy jogay fi mu tok mën na wax lo xamné ne du ci wat donc don euh, personnage bo xamné mom mi ngi koy incarner mu don lu lu lu lu doy waar lo xamné lu extraordinaire lu naturel boo deglo dégloo da ngay sentir ni li dafa naturel ci si jogay kon japp nga il est le meilleur je, je, ne dis pas il est le meilleur. Kanukutinek, meilleur c'est ce domaine. Il est le meilleur. Personne n'est meilleur au-dessus de tout le monde. Kanukutinek, il faut que yalla may. Lila la yàlla may nak. doomu aadama yi kenn ku ci nekk suñu borom roof na la xolub nga bëgg kooku di ko topp. la ma ñu naan lawal Fatou indi lawal bi indi lawal bi ba tey gis nga de Ousmane ah euh, nee naa la tey waxtaan bu extraordinaire lay doon parce que artiste bi euh, man dama ko xam. Euh, man <clears throat> mën naa ni euh, li ma doon moom moo ma ko def Iba moo jëlee sa kaas merci beaucoup Ka Fatou gi nga Ousmane Fatou sama sama xarit la ah, faatu mu ngook ñu naan lëwal mhm. teg kaasi waa xam nga jibi euh, tey business boobu am na lu mu indi ci lu mu yàq benn ñaareel ba. Euh, Le business dugg day yak parce que xam man sumay def tay gis business bi khalis lay xol do trop dotuma xol qualité par contre nak, te bo defé bo xolulé qualité business bi nga bëgg do ko ci am parce que ken du seetaan lo, lo xamné du qualité tay nit ñi seetaan mais attends xamnañ ni ñi xol bu baax xam nañu foti xam nañu lu am njariñ ak lu amul njariñ donc léegi il faut que ñu xoolaat suñu bopp ci maanaam ci histoire yi ñuy am di ko bind di ko développer muy qualité personnage yi nga xam ni ñooy incarner rôle yi ñu bañ a def yaa ma neex. mais Iba Mbodj théâtre dañ ko daan jàng. man bi may def théâtre dañ ñu former jàngal ñu. Mm. mais léegi dañ naan diw célébrité la. le mannequin la wala animateur la wala animatrice la wala journaliste là rek war na mën am place sur scène. mannequin bi bu ñëwé kenn formé wu ko mannequinat bi la fay indi rek buy dox da ngay sentir mannequin journaliste bi wala nga gis reporter wala nga gis euh, animateur bu ñëwé façon bi muy animé lay qu'est-ce donc moo tax man la kon nekkatul art mais business la. business la ba paré aussi euh, dafa am expression bu gaay di dafa yomb affaire bi dafa yomb facile na non li ngay def rek def li def li dem jëli sa ay euh, xalé yo xam yag nga len top ñuy bañ wala ñun la am buur man dem bëgg def théâtre xana do di ben film buur géwal daal di ñew def def ay affaire am daal di tek daal ni affaire bi gaañ c'est facile rek daal di c'est c'est facile non c'est pas facile après boko guéné c'est si nga c'est pas facile nit ñi koy consommer xam nañu li ñuy consommer bu baax waaw. mais la daaray Kocc daan def Ibou Mbodj amatul thème yi xeetu scénario yooyu jéegu yor-yor ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu amatul. waaw parce que daaray Kocc beneen affaire la daaray Kocc ki ko jiita woon ñu ko jiite woon ki yoroon scénario bi di ko bind jiite ko yor mise en scène suñu borom da ko mayoon may boobu mu ko may mun a doyul di gëstu. di bind ñuy répéter trois fois dans la semaine daaray coach bépp produit bu mu def man ba may ñëw daaray Kocc la laa leen fekk répétition lundi mercredi vendredi ñu lay teg ci yoon lépp loy wax dañ koy bind de A à Z dinañ la bàyyi nak nga yokk waaye yok bi du génn ci lañuy def histoire lañ lay tegal parce que xam la moy problème bi ji bi actuellement ni personnage ñoy imposé scénario manam bo déggé ma wax la mooy scénario bi boko indé wala idée bi man boma joxé rôle man may créer man naka la koy doxalé or que idée bu amé ñu bind scénario bind personnage idée bobu ñu développer moom mo lay conditionner yow personnage ci histoire bi nga né mhm. ci solin ci toogin ci waxin ci geste ci xoolin moo la koy wax mais léegi man man man Lamarana may imposer lu ma war a sol ci film bi mu du ànd ak moom kër gi ma dëkk du ànd li may sol sama kàllaama àndul loolu moo fi nekk léegi. Lama des fois dañu gis ne que jafe-jafe yi bëri na ci milieu art euh, jamono yële gis nga fi le cas de Baye ak feebaram. ba ñu tàggoon ko fi mu génn démentir am ay comédiens yu mu ci attaque gis nañ fi la cas de Modou ci problème yi mu nekkee ak nangam ak nangam genre situation yi des fois ni muy juree ci artiste ba kenn du ci mën waaw xam nga ma leen di nuyu ñooñu de passage di seet nu ñu def yal na leen yàlla may wér ak képp koo xam ni yaa ngi tëdd feebar waxuma artiste kese ak bépp doomu aadama bi nga xam ne suñu borom teg na la nattu nga wéradi man jibi dafa am philosophie bu ma am sama man la damay ñaan suñu borom yalla nga xamni moñu sak bes bu ma démé ba tek ma febar, yalla na ma roof xolub gem yalla gu dëgër iman gu dëgër ak dal ak sutural sama bop ak sama njabot ak sama mbokk ba dal ba ba duma ko siwal ba kenn di ci jot parce que d'accord ay artistes lañu ça ne veut pas dire que ñun liñ fi def ken def ko déedéet mérité nañu ñu dimbali mérité nañ ko d'accord mais l'enseignant qui brave les frontières la pluie le soleil le militaire bi nek front mérité wuñ ko waaw donc kon man dama nan ñun buñu fébaré pourquoi muy siiw ñu nan dafa soxla ndimbal

foto ak yow ku am témèr sax dina yokal pass paas liggéeyoo fi wala nga jaamu fi yalla, wala nga gën nit ñi lu suñu borom defal lako ba paré mu roof ci xol nit ñu bëgg la wa bo la roofee fébar do am ngoruk wéetoog suñu borom niko ko ah góor gi man dé goré na damay goré ba wuy ji la ndax li nga ma defal ci aduna bi kat bari nañu ko bëgg defal lo len ko wa pourquoi ñun buñu fébaré mu siiw pourquoi ñun bu ñu feebaree mu war a siiw eh, di lu am solo te la ma ñu jaar ci loxoom ba mu former leen bari naa ah. la ma tey boo doon eh, eh, boo doon tànn ki la gën a marqué ci ñi jot jaar ci yow nga former leen artistiquement <laughs> parce que yaa rubasey Sey mm. y'a Thiamas actuellement mm. yaa Bour Guéwél ku mel ni man mm. y'a tonton Libaas Modou Fall ak ñeneen ñoom jagaan ak ñeneen ak ñeneen te ñooñu ku la ci gën a waa Ruba, Ibra moko formé mu ñew xeyna ma am lu ma amna am talent trop yeen ñep la ngeen ma marqué hein ah. yeen ñep parce que kenn ku ci nekk ci yeen dafa am lu ko yalla may ci walu personnage yow par exemple suñu borom may na la comédie may la drame ndax def nañ ko liggéey nañ ko liggéey nañu drame bo xamné tay xeyna sa boy yi buñ ko sétané dinañ ne ki du merci Fassé Tay buñu démone ci comédie bi ah dinañ gis ñom lo ci yow dinañ ah non non non kii du donc tu vois Chama la même chose euh, Modou Fall la même chose Hein? donc euh, ma may sant yàlla nag parce que lu warona am la lu warona jaar suma loxo ñu liggéey ko ensemble ngeen déggalon ma torop sax nangu torop ba nga xam ne am ngeen li ngeen am tey ma koy sante yàlla nag suñu borom bu baax a baax a baax du lu may tiitaroo wala ma koy buñ ma ci posé wul yow mi boo parce que da nga ma xam boo ma ci posé wul question du ma ko wax def naa interview du ma ko sax wax parce que kenn ku ci nekk ak sa destinée voilà. Euh, Iba Mbodj euh, euh, sama laaj bu mujj Iba tey nga am carrière bu magnifique mm. yàlla def tey ngay dund tey sa wajur wu jigéen njëkk wu ji. Euh, ki nekkoon sa wéttal di bàyyi boole wuy ji mm. tey nga amoon mébét ci ñoom est-ce que la ma fois du euh, maanaam du sentir wéetaay ci moom mm-hmm. bien sûr parce que comme ni nga ko waxee wayjur moom wayjur la rek euh, dafa am loo xam ne bu fi nekkee dala la koy wéttali tey boo demee ba jàq boo ñëwee ñu gindi la ci ay paroles yu sain paroles yu yoo xam ne yu doy waar banga nga amaat courage mais yooyu lay laay garder. kan mooy Rama Niass. Ah, mooy suma yaay <laughs> donc euh, mu doonoon koo xam ne ci man ci ci njaboot gi sax lu lu lu doy waar li may li may li may boo nee regretté damay mel damay weddi suma borom xam nu ma ko mën a waxee. li may ñeewantal samay doom rek mooy lu tax fekkuñu ñu ko fi loolu rek laay ñeewantal samay doom donc ku bëggoon a gis sama njaboot la mais suñu borom kenn du xëcc moom waaw. Baye hmm. moom moom aussi moom aussi ak rigueur am ak fulaam ak fayda ak ngorom ak am jomam si la ñu yar donc moo tax yu bari xëy na yow tey boo ma ci déggoon. di nga ni est-ce que Iba Mbodj la di nga ni est-ce que moom la di nga jël sa téléphone ni ma waa saa waay lu la dal ba nga def lii wala lu la dal ba nga dugg ci lii parce que xam nga fa ngay waxee donc yooyu lañu ñu ci ñun ma ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax waaw bu mettee kenn xamul bu neexee kenn xamul te day metti sax parce que yàlla moo bind àddina noonu day neex di metti bu neexee pourquoi ñun bu nexé ñu sante fecc ré kaf kër ga neex kara mu metti après ngay jambat mais dimbal leen artiste wax dimbali leen artiste bi et pourtant da da neex merci beaucoup té ka ngay ñaan dimbal suñu borom la yaakar pour dimbali la ah, a tax do ñëk yaakar suñu borom. la mo lay tàggoo. li rek moy sante gërem di gërem wa Dakar Actu hein di gërëm peuple sénégalais bi yëpp ñu nekk diaspora di gërëm samay goro soxna baabu Mamadou sama soxna di ko gërëm ak sama njaboot di gërëm famille Mbodiène bu ma tuddee kenn rek yóbbaale naa ñëpp mooy suñu xalifa mooy suñu taaw muy Alioune Mbodj donc di gërëm dëkkandoo yi di gërëm population xaar yàlla ak la population du commune de Grand Yoff yëpp maa ngi leen di sant di gërëm senegal gep man jibi damay wax ni ñepp mu bëgg man dama ne kenn bañuma parce que damay dox di dajeeg ak lo ne ci nit ñi ñukoy am ci man cofeel ak waxtaan bo xam daf may yëm sax man te kañ la gëj a génn ci télé bi donc kon sant yalla bu baaxa baaxa baax di ñaanal ñi dawlu suñu borom jéggal leen seen yi bakkar xaré leen aljana a ah, feebar bi nga xam duguna ci réew mi nek ci adina yàlla nako suñu borom teggi ci réew mi ci adina bi ñi ci jotta febar suñu borom safaral len ñi ci faatu yalla yërëm len jéggal len aljana ci barké yonent bi sallallahu alayhi wasallam may gëreem ñëpp daal di sant wala voilà. jëf euh, mu ngi nonu dama wax ni ki ma seet si dama wax ni moy suma guide ah. euh, ki ma seet si waxtaan ak mom c'est un frère mais plus que ça c'est un père pour moi. parce que dama wax ni tey bu jibi wala buur géwél daje Sénégal walla réew mi yàlla ak bakkanam la moo ma ne woon li nekk ceew xamagoo ko waaye ñëwal ñu ànd ma loolu nekk ceew ma feeñal ko ba Sénégal la yëpp xam ko te musu ko wax musu ko ndamoo di un artiste pétri de talent talent la boo xamante ni que wër na àddina wër na addina il a participé dans toutes les grandes scènes du monde mën nañu wax ni que ci histoire théâtre Sénégal li fi jot am ci succès defe naa ni euh, téléfilm yi mu jot def succès bi mu am dara mus ko am euh, man nag dama koy ñaanal moom laa koy wax chaque jour nee naa ko man ku rëyee taxaw ne yaa ko defar man yow yaa ma defar man yow yaa ma forme man tey li nekk ci man moom Ibrahima Mbodj Lamarana moom moo ko def ci man bàyyam moom woowoon woolu ko ne ko ibrahim mu ne ko naa mu ne ko doom ju baax day am géwél bu baax na ko Ibrahima sama dund ak sama fekke jibi mii kat bugguma sa kol rek moom dagg moo xam ma fekk ko ak ma ñàkk ko bañ a fekke bay bole mbooj di ko ñaan yàlla xare ko aljanna kon mu ngi noonu émission baa ngi noonu gis nga li ñu waxtaanee euh, defe naa ni jëlee ngeen ci njariñ defe naa ni gis ngeen ci seen bopp ci plusieurs points yi nga xamante ne que jot nañ ko définir kon mbokk yi lii leen seen xarit seen soppi Bour Gueweul indi loon sur Dakaractu dañuy ànd ak yéen def yeneen i découverte ci yeneen i ndaanaan que ça soit sportif musical ci wàllu culture ak ci lu mu mën a doon dem xool yi naka lañu ñu nekkee ñi daan yëngu yëngootuñu ci lu ñu ne ñi daan yëngu feebar ci lu ñu nekk ñi daan yëngu tey génn àdduna njaboot gi ñu fi bay naka la ñu nekkee ak naka la ñuy dundee kon ñun ak yéen ci yeneen i jamono sur Dakaractu Thank you.